pongaari day ma nga naan ca làmb ja ay ca yàgg na yàgg na tribune yéene kaay mel ni ku naan man gaa yaa nga ban ci kan la président Macky Sall tabb nag ci waa Benno Bokk Yaakaar yéene kaay bi dee média naan man Amadou Ba moom ma ngay wax saa si tembe waxu deuxième tour l'observateur naan man waxtu woo xam ni baat yaa ngi xojee gaa nekk nekk salle tant mel ni kuy xaar résultat bak le soleil yéene kaay naan ko dee gaa yi kay fi mu ne tiitaange goo xam ne maar taali moo na ci ñoom tiitaange goo xam ni kenn kese képp dong moo xam lan mooy am l'observateur naan kon Sall bu dee tabb na dafa melni ko arrièreaat de di xolat dal di yeral ak lambat wat le soleil ne ko moo taxit gars nan fi ne li ne sa dun ak nga tab ne sa bop wax ko las nan kon en tout cas combat gi mom tambalina digeunte Daouda Diallo ak Amadou Ba marwan Ben Yahmed bu Jeune Afrique ne man de suma don sal mom Amadou Ba lay tan tribune yene kay nan man Amadou Ba nga xamne tanagun ko ma nga naan Ndakaaru jël ken munu ko gagner tribune ne ma li le premier ministre wax ne présidentiel gi bunte jaagar jaagaree dem ca mën ñoo ñàkk nag jëm ci ñaareelu wërngal ba deuxième tour yéene kaay bi dee média bi naan kon xam nga tol du xam nga tol ni mu foroxee nii la bile présidentiel foroxee ci yéen waa Benno Bokk Yaakaar yomba moom da ngeen koy dégg ndax mënta am ndax ndakaaru rek yow Amadou Ba yaa ngi koy xëccoo ak Abdoulaye Diouf Sarr te yéen ñaar ñëpp yéen a yem fayal laaxu ndax élection moom da ngeen dégg gañee mësu leen ko def ñeneen ña nga xam na nag ci biir bennoo nee ñu ay candidat lañu yéene kaay bi naan kon ñoom fuñ toj ku leen xam daanaka base politique bu dëgër sax amuñu ko laas man premier vice président bu assemblée nationale ak secrétaire national bu diaspora bu APR nee ñu daal président Macky Sall tabal Abdoulaye Daouda Diallo Mamadou Lamine Diallo ci waa Grand Place ne xam nga sénégalais i sax dañoo faf jàppee palais présidentiel googee marché Mor yombale jàppee ko nag taabalu yaa ngoone goo xam ne dañ koy waxaale joxuñu gëdd joxuñu cër pale bi ku jóg laa ne la ne candidat laa te tegoo ko fenn maître Abdoulaye Tine mel ni ku naan kon ñi ngi samp seen ndënd waaye lu samp gi bari bari nañu bàyyi xel parrainage bi ne Sall moom mi ngi fekk parrainage ménage am rek léegi seggatul waaye saañ la woo xam ni day tëj ba ñenn ñi mani la duñu futteekoo ci butee bi naan dañuy génn booba maître Abdoulaye Wade ak Viviane Dey nee ñu ñibbisi nañu ci ndakaaru ni ki démb l'enquête quotidien naan man opération nag setal wecci doom ja Karim daal di dëkk ñu tàmbalee def ci xel yi ne Karim moom deful waxul yëgul tinul direct news ne ma en tout cas téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñetti milliards yi ñu ne woon moom bi boo buur si nguurug Sénégal da koo war a fay ma ngi koy teggi ndànk-ndànk yore luñ ko bi boo bursi te fay ñu ko ko réew mi quotidien naan maan beneen kaa ngi nii muy xalifa Babacar Sall moom maire bu yoo Seydina Issa Lay Samb xamle na ni xalifa Babacar Sall mi ngi ba tey biir yeewi askan wi waaye ba nii ma ni la xaaf benn convocation duñ ko ko jox ngir nag xalifa mi mën a dem ci jotaay yeewi askan wi yi booba réew mi ki jafe-jafeem pôle judiciaire financier bi nga xam ne teg ko ci réew mi mu war a remplacer ñoom CREI ak yeneen maître Ousseynou Gaye ne ma ni la ay faay bari na ca ndax dañu koo yaatal ba mu laal benn pàcc ci droit goo xam ne ña ñuy atte bés bu yàlla sàkk ñoo ko war a yittewoo sàll nag faw mu xool mbir mi lu ko mooy làmbaay ñaaw Pape Modou Fall directeur de l'emploi ci liiko quotidien ne réew mi day làmbaay bu fi ñaawee ñu ne te ñun la neex ndax nag réewum senegal bu nu sooboo ci xàcceendoo dóorandoo la ñuy wax ne pétrole ak gaz fu mu daal di feeñ jàmm daal di fa jeex senegal gii daal mën na caa mucc mën nañu jël pétrole beeg gaas bi nag tànqandoo ko jëfandikoondoo ko la cay bàyyeekoo doon meññeef ci réewum Sénégal ñu daal di joyanti suñu réew te bu ñu bëggee mu am xàcceendoo dóorandoo kese dara du ko dindi en tout cas réewum Sénégal moom mi ngi jëm ci guuta le point yéen a naan maan déet balaa ngay dem kay moom Madiambal Diagne bind na ab téere boo xam ne diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr lay nettali la ca xew ak la nga xam ne aji Sarr dund na ko ci coow loolee Vox Populi naan maan waxtu waw réewum Sénégal mi ngi ni xuus ak jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne nguurug Sénégal war na jóg saafara ko jafe-jafe yoo xam ne dëgg-dëgg moo yitteeg Sénégalais yi waa aftu ci boppam nga xam ne ñooy tataay Sénégalais yi ñoom la ñuy jël ngir dem ak dikk gu aftu googee mi ngi ci gréew goo xam ne ñetti fan la fi ne liggéey bu dox ci réewum Sénégal dee yàlla xam suur su aanama waxtu woowu it ca Touba ña ngay waajal màggal ga waaye it ONAS waataloon na leen ni mbënd moom dañ koy dégg rek waxtu woowu ma ne la waa Touba day askan waa ngi toog ba jaaxle diggante Mbàkke ak Touba moom dem fa daanaka jaxan na ma la l'hôpital ya ba ci ndaamatu ma ne la dafa daal di lóor soo demee ba l'hôpital ba nekk ca ndaamatu yéene kaay bi naan maan bureau fa ñuy fajee malade revitaliser lépp fees ngir yegg ci mairie bu Touba sax ma ni la il faut nga yéeg ci ay xeer ngir roñ-roñ yi doora dugg ci biir mairie ba tax ba ngir egg ca grande mosquée ba faaw nga fay juróom benni téeméer lu ko moy doo yegg yéene kaay bi naan maan waaye ana waat yi nga xam ne ONAS waatoon na ko ana waat yi nga xam ne ñu yor mbënd mi waatoon nañu ko ne Touba moom tax xali na ak mbënd fa yàllaaxu yéene kaay bi ne ma France daal di xidéem dara amu ca tey jii la fa nawet ba gën a lóoral turbine naan maan jafe-jafey sénégalais yi jeexagul ak doom bu góor ci réew mi nag mel ni ku tëb dal ci xaal dese na ko wenee nuk fi mu ne ban jaaxle la toog ci tam joo xam ne bu amee yàlla la neex ndax poche yu fëq la muy àndal ñàkk teg ci cher lool ci réew mi bugaan ci l'indépendant yéen a kaay naan déedéet ki ñu war a waxal kay mooy président Macky Sall ndax nag bu ñu nee pétrole ak gaz feeñ na ci réew mi te loolee mën naa jur ay waxtu woow la nga xam ne moo nekk ci Kédougou yàgg fa dara muy sunu or ña ngi cay tuñtuñal sénégalais yi di leen ci loo jaxan na ma goo xam ne maar day taali bugaan géey dani ne Sénégal ma ni la ndóolloo na ñunu yemunu ca léegi dañoo jël sunuy am am yematun ca jël sunuy am am dañoo jël takk der yi nag ñu niy def maar day taali goo xam ne ci sunum réew di ñu tàpp ak dóor ci alal joo xam ne sunu yo sax demal ba Kédougou or ga fa feeñ mani la askan wa terewul ña ngi fay dundu jaxannama goo xam ne maar day taali ñeneen la ñu jële bitim réew ñu ñëw di exploité or gi exploitation googee mani la doomug Sénégal bu ca wax doomu Kédougou goo xam ni génn nga wax ca ñu dal sa kaw ba maar day taali yemunu ci ndóol Sénégal yemunu ci xiif Sénégal ya muñ ci mar dañoo fekk nag sunu am am ci boppam duñ ci tuñ tuñal ku ko weddi nag bugaan gay dani ne demal ba Kédougou doomu Sénégal ñu fay dund ci seen biir réew loo xam ni maar day taali waxtu wal Walf Quotidien ma askan wi moom am nañ fulla bind gouvernement gi nag ne ko dañoo bëgg nga leeral nu dëgg-dëgg wooyefal gi nga xam ne diis na si ñun nara faat góorlu soo jëndee courant balaa ngay xef xippi mu daal di jeex dañoo bëgg nag yow gouvernement gu Sénégal nga andi lu ci gindee ki leeral ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm